jotaay bi lépp loolu rek la fàttali ko Serigne Saliou ak fàttalee ko fàttali ak fàttalee euh, moom nag kenn fàttewu ko sax waaye lu yeyoo na jotaay bi bis bu set bis bu set war na am ko organise jotaay bu mel nii ndax moom moom ci boppam projet boo xam ne daa daa daa am njëriñ ci jamono ndax ay ay ay ay ay ay ay ay yéeneem ak i bëgg-bëggam ak réalisation am yooyu mooy yi nga xam ne mooy doxal jamono te yooyu waxtu wu nekk dañ ko war di wax nit ñi ñu di ko xam kon euh, sëriñ Souhaïbou mi ak sëriñ Moustapha Diop ñi nga xam ne ñoo organisé bis bi ñoo ngi leen ci sant bu baax te leen ci soññi te buñ ko bàyyi at mu jot buñ ko mënee yokk sax mu baax na waaye buñ ko mënee at mu jot nañ ko def ndax loo am solo la ndax jëmm ngoog joo xam ne waxtu wu ne dañ ko war di wax nit ñi bindkat bu ne dañoo war a bind ndax ko ko ko ko ku ku ku ay xalaatam jéem a jëlee naa baatin ba jëlee naa seen tubaab ma ko jur jëlee naa yooyu yëpp waaye ay xalaatam dafa doon loo xam ni mooy doxal jamono ba ta seen émission bu googu wet dana ci ñëw dana ci ñëw lu bari mm, bu ko defee kon euh, ñu dend ak Serigne sunu rakk Serigne Cheikh Diouf muy koo xam ne Serigne bee ko yar incha allahu taala waxtaanu li ci bari moo koy moo koy doxal bu ko defee nag jëmm jooju ngir ñu waxtaan ci moom aaj euh, aajeetul di xam le mooy kan ndax moom li ñuy wax ganiyun ani taarif ñëpp ko xam ñëpp xam nañ ko gën a tuuti man dem naa Argentine. da toog faak gone goo xam ni ba muy waxtaan ci sëñ bi dama dama koy déglu te te sëñ bee ko yar te gone yi mujj ci sëñ bi la waaye wax na moo fa loo jariñ na ma fa loo xam ne xaw ma ko woon sax ci sëriñ bi te muy gone gu du xam wax ni mën naa ko jur waaye xamal ni sëriñ bi xam gi moom ñëpp def nañ ko li am solo kay kon léegi mooy xam li mu bëggoon ak ni mu ci doon tege nit ñi ñu won yoon yoowu woo yoon woo won yoon woowu nit ñi ndax woowu moo mën a defar réew mi woowu moo mën a defar nit ki addunaam ak àlaxiraam ne ci kum taxool ba ba ba bàyyi la ki mu taxool ba bàyyi ko ba yewi ko kooku exemple lay doon ci diine exemple lay doon ci àdduna ñaari fan ñaari fan yi yëpp da ko goo ci dugg ak moom da da da koy xam noonu nag lay def moom day defar nit di yar ko xamal ko boroom xamal ko àdduna ndax àdduna it di ko sàggane di su ko wàcc waaw diis na ko nag bañ a faale waaye di ndax moom ci boppam kuy xam àdduna moo la ko gën a xam saa su ko ci waxtaan ci ci ci plan àdduna bi géographique ak i nangam ak nangam ak ak ak biddiw yeeg weer yeeg bu ko ci yàlla xiiree da ngay defee ne kii du ndax lim ci xam yaatu na yaatu goo xam ni te lépp nag noonu la ko xamee lépp lu mu xam dana noonu la ko xamee euh, ba noppi nag teg ko fee nag ku ko gis euh, alaaji may sa sekk rahmatullahi alayhi ko yeew gi bu yeewu woon la yeewu te xam jamono te jàng dama daan ko xorom woon la dama daan eh, sa waay ji këmmam ji ko jàppee dans la dans la bett de ah, dans la bett boo ko gisee defee na xamul dara ci àdduna te ñi xam àdduna da leen ko doon jàngal bokkam yii mm, kenn ku nekk mm, am na kilifa goo xam ne dafa wax doomam ne ko kilifa gu mag la ci ñu bokkal doomam da da génn ñëw mu ne ko foo demoon mu ne ko dama siyaare ji woon ne ko addiw ko seen waay yooyu da xamu leen ko waaw kooku day boobu Abdou Diouf fi ne kooku de ngóor si yor réew mi moo ko dàq yor moo ko dàq yor noonu la ta te loola mooy li wér lépp lu mu doon lu ne moo ko dàq kumu te ba noppi nag ne cal ne dégg noonu nag bu jàppee nit noonu la koy def dana koy yee dana koy yar dana ko defar dana ko xamal diineem dana ko xamal addunaam ba wàllug diine du ca gàkk di du ca du ca laaji adduna yit kenn du ko ci nax noonu noonu lay defar nit loolu nag projet yooyu nag xamal ko nit ñi mooy li xam ne Serigne Saliou ci jamono ji ñu toll loolu lañ soxla waaye doo xam jëmm joo xam ne jëmm ji bu ñu xasee ni Serigne Saliou ñëpp ko xam ñi jullit ak ñi dul jullit te ñi murit ak ñi murit gone ak mag góor ak jigéen gone yi ak jigéen ñi day mel ne sax ñoo gën a xam Serigne Saliou ci jamono ji ñu toll ndax bëgg gi ñu ko bëgg mu jaral leen di ko gëstu di ko gëstu ba tax na ñëpp ko xam waaye nag ko ñu ko xamee ba noppi nañ xam nag lan la bëggoon loolu am solo loolu mooy li xam ni moom lañ bëgg a waxtaane li nga xam ne moom la doon defee ndax dafa amoon liggéey boppam boo xam ne tax na mu sàggane lépp lu dul liggéey boobu ndax bi may yóbbu got maa ngi koy wax léegi bi may yóbbu got mm, bi ne ba egg bi ma wooyee ba bañ toog bi dañu ma fii li ma la fi indee laa bëgg nga xam ko daal ne ma li ma la fi indee mooy sama liggéey mooy jàng jàngale ak yar loolu dong lañ ma def loo woon nag moo ma dab ñett ma ba mënatuma ko ma bëgg nga féete ma ci daal di may wax ne lu ci dolli ko rek damaa dab waaye lii rek lañ ma liggéey la woon muy jàng ak jàngale ak liggéey loolu nag réalisé na ci réalisé na ci loo xam ni loolu moo mat a woon nit ñi loolu mooy li nga xam ne moo indi jataay bii tey ñu xam le kan mooy Serigne Saliou lan la bëggoon nan la doon defaree nan la bëgg nit ñi mel ni buñ ni melee incha allahu taala réew mi dana jag te ku ñu mel ku ne sa dana jag sa àllaxira dana jag te ab defaram moom rek moo mën defar réew mi ndax am réew euh, xam-xam yoru ko ak juba ko yor am lu ñu xam-xam yi bari bari bari te njub gi amut réew ma du lu xam-xam yi Sénégal kenn ëpp ko ay jàngkat waaye rek lu ci des rek ci njub yi la dese njub googu nag lay def ci nit ba nitam foo ko fekk loo ko dénk mën na ko saytu ba mel na nga bëgg te te te te dara dara du la ca naqari te wàllu diinam dara du ci yàqu ndax moom daraan wax ni ab taalibe daa war a man daa war a man lu ne na daana wax ni biir kër Sëñ Tuubaa gi tol nay jamono lu ñu soxla ñu wuti ku koy def lu ñu soxla rek mi ngi ci donga yi lu sëñ bi soxla mi ngi ci donga yi jaafira daal di ma wax ne diw moo daan defal jaafira yi te bu ma saan defar bu ñu ko gaaralee ñëpp dañ koy seetaan te ci donc doom yi soxna yi la ñi mu yar la bokk diw moo daan moo moo moo daan minise nga xam ni bu defaree ba bàyyi te lépp ci biir kër gi lañ koy def lu mu doon lu ne mu ne ma këruk murit nag noonu la war a mel nga xam ne noonu la doon formé moom ba fi ne nii daaraam biir daaraam loo soxla ci xeetu métier ak xeetu nit ku génn ci daaram mën na ko te ñi ci gën a bari ci biir daara ji lañ ko mënee ñu bari ci biir daara ji lañ mën damaa ah, damaa amasaam ngóor suma yoroon mm, mm, mm, bi bi ak tëbaski egsi mu daa di léeb machine dem engagé ñëw réew ñëw dëkk ba man ko waaw yow lii ngay def lu mu doon muy damay damay ñëw dëkk man ko yow foo jàngee ñëw mu ree daa dëkk ba mu ne leen kuy andi sam ñaw na nga andi na nga andi modèle ba nga bëgg mu mel ni nga xam ne bu ñëwee da koy teg mel ne ku sotti mbind te bu noppee mooy dàq booba ñoom waa dëkk yëpp dañoo maase ci ne moom moo dàq ñëw ko te jànge wu ko fenn boobu mi ngi ci boobu mi ngi ci daara ji loolu noonu le sëriñ bii def nit lépp xeeti métier yëpp yëpp ya amoon ci biir daara ji te ñëpp ci biir daara ji dañ ko te loolu lépp ci barkeem ak barkeem sëriñ Tuubaa ba nga xam ne moom la doon roy bay wax ni kër wu murit lépp lu ñuy def dafaa war a am noonu la roon defar nit kon bu ñu jàpp ni Serigne Saliou da doon defar nit rek ngir ngir ngir ngir diine déedéet koy defar ngir diine ak dunya diine wa dunya kenn du leen tàggale wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabghi al-fasada fi al-ardi ku mu defar ku ne noonu lay mel ba tax na loolu nag nit ñi xam ni kooku moy kooku noonu la meloon noonu la doon def ci nit loolu mooy andi moo andi jotaay bii tey kon xam naa foofu la ñuy eh, taxaw sëñ affaire dañ doon ubbi rek bu ko defee boo joxee sëñ Juuf sa sëñ Seex Juuf nag loolu dana feeñ boo joxee sëriñ Suhaybu loolu dana gën a feeñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah allah barakallah bismillah bismillah jërëjëf sëriñ Abibu Diop moom sëriñ Mahamadou Lamine Diop Dagana ni ma ko waxee léegi euh, muy borom xam-xam yaakaar naa defar na jataay ba noppi ci li nga xam ne ubbi na ko doy na sëkk ku bëgg a xam kan mooy sëriñ Tuubaa sëriñ Saalix toolub sunna ak jàmbaar ji ah, jàmbaar jàmbaar ji ànd ko fit ak xol bu rëy te rafet moo mën a dékku sa bis yeeg bis yi ñëw ci kanam tollu su naag farataak mando bi moo ko fi bay yenam ba diis nata te sooxul kenn du làqu lefam sariwaate àqihaaj mac soob ga lenn desul siggal ne diine ji si gël yoon wi yaa am ndam mboolem garar yi ñu góor yàlla daa ko na moo ràngu na yëpp di way yow yaa jubag sa borom la yàlla soxla ci nit moom lay defar ba mu jag ba mu weesu yàqu mu fab delloo Saliou moom defar gu rek mooy la ko saf ndax nit lu dul ruuga muurum suufa foofa la jëm defar na junni bi junni ruu defar bu rafet sellal ko bañ seexlu luy bon bon yi ak lu tilim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 Dakar gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. Ah, am lépp tawfeex sëriñ bi mën bi.